ancien député bi ñu dégg di Idrissa Seck dégg naa def feebar. ndax nga ah, waxoon naa leen waxoon naa li ko dal. Mhm. wax naa leen li koy dal yëpp ak ni mu koy dikkee yëpp wax naa leen ko. Mhm. waaw est ce cee leeralaatal tuuti rek. non leeral bi teewul ne. Mhm. feebar bi li ko dal dafa nekk ci biir boppam. ci bopp bi la nekk ci digg ginnaaw gi. ma feebaru xel la wala feebaru. non day wax day làkk ay ay arab wala muy làkk ay espagnol wala muy dugg ci ay kebetu kebetu kebetu kebetu kebetu noonu la ko woo daa neen nag kuy mbokkam. ma dimbali ko. Mm-hmm. woote naa woote naa buñ ma wuysee muy noonu te buñ ma wuysiwul na am loo xam ne moo ko moom lu am ñeenti tànk mm-hmm. mala bu am ñeenti tànk mm-hmm. boo xam ne moom Idrissa ko moom moom moo ko moom dina moom ci mala bi sa day am yëngatu bokk mala bi sax day feebar mais mais mais mais loolu est-ce jàpp def def la wala wala feebar la. wala la seet ma wax leen la. waaw doo ñu ko mayee ñun bokk internet. non wax leen ko amul sens parce que. Euh, tamit damay wax nii rek. parce que man mhm. soo gisee may wax. Mhm. pour bëgg xam nga dëkk bi léegi mënoo yónni kenn. Mhm. da nga yónnee ci nit sax nit ñëw dóor la ay dóor la. te damaa bëgg léegi lu may def ma def ko ki nga xam ne moo ma ñor. mais mais en tout cas daal feebar bi yow waxoon nga waxoon nga ko ñëpp Sénégal. mi ngi vaar dem leen vaar. may soxna am ay dem sëni Saliou barke nent bi li yaa xam ñu nag bu màggal gi ñëw nii ñun murit dañuy rafet. dañuy rafet waaw dañuy rafet. <laughs> dañuy rafet. Eh. safar gee jub. nan ma seet si. barke sëñ Tuubaa ba ma seet ma yëkkati ko barke yonent bi état bu Sénégal dina neex dina xumb mhm. maire yi ay futur maire yu bees yooyu am ñu bari dañuy jóge seeni commune dañ leen di dàq ñeneen ñu bees ay futur maire ay am mhm. ñu délégation def benn campagne def benn partie parti bugaan mhm. am na dara président Macky am na dara mais gis nga ñi def benn say léegi maraakis yi commencé naa. Euh, euh, grande coalition nag nga gisee. ci petite coalition lay mujj grande coalition sonate la li wax dana waa petite coalition lay mujj dañuy xeex dañuy dañuy merante dañuy xasante dañuy yàq dañuy ŋàññante du mujj fenn. kon gëm nga ni dañu ànd ñoom ñett ñooñu ñeent. ànd bi du egg naka ko jiite daa nekk ci jafe-jafe. waa sid yi bokk na ci sid yi ma ni woon ne feebar bi ku koy faj du maaraa. Mhm. ku koy faj du nitu maa mën. Mm-hmm. yàlla dogal na dogalam yi nag weer nañ ko xaawi suturaam li ma ci doon wax yëpp mooy lii mm-hmm. ndax waxi soxna Aida tuddul dinaa leen internet tuddul internet inter denc la tudd bu wax yi wéree coow li ubbeeku soxna ayda nag lam leen waxoon yëpp yaakaar naa ni soxna Aida dem leen vaar mm-hmm. may borom vaar du ma wax lu ma gëmut du ma wax lu ma xamut du ma wax lu ma mënut te lu ma gis ci réew mi ba ne leen kii li mu def du nii rek du nii léegi lii ñu bàyyi woon ko mu dund ak feebaram ci sutura. Mhm. ñu faj ko ci sutura moo gën waaye maa ngi woo sama doom Wally Seck. Mhm. yow engagement boo engagé di ko jël. Mhm. faramareen bi. yow lii du dara Famba yi yaa ko njëkk a soulagé. yaa ko njëkk bàyyi mu xàppi yaa ko njëkk teral. yaa ko njëkk bàyyi yaa ko njëkk a soutenir. di la ñaan rek. yow doo seetaan lu métti. Mhm. dégg nañ tamit ah, comme ni nga wax rek mu wax ci Wally que ni Wally ko joxoon 15 millions ko téel ma ba keroog may am ku ma mën a ñu faj ma. waaw waaw mais yaa geste boobu naka ko gisee ak tamit ba xam tey ah, kooku noonu di Fambaye tey nan lañ ko war a mën a taxawoo ba dimbali ko mu faj. Fambaye sonn na engagement wu président la république la waaye engagement wu Sénégal yëpp la. Mhm. képp koo xam ne yaay nga wala doom nga am nga yaay am nga rakk am nga mag am nga bàjjan. te jigéen dafa bokk ci société bi. Mhm. ndax ku fi tedd tey rek jigéen a la fi indi. Mhm. may ñaan kilifa diine kilifa aada. Mhm. jeunesse bi képp ku am sa doole booy wane wala booy jaay wala nii laa mel. wala di ko wane. wane ko ci Fambaye defal ni Waly def. Fambaye li mu wax dafa daw yaram Waly jox na ma 15 millions waaye man maa ko ni téyel ma ko ba ma gis solution. te dina ko doole de pour Faramareen. bu fi 100 millions nekkee da koy jël engagement du ci xaar kenn. visa la koy tamponné léegi mu dem. aussi tamit euh, lu bari jaaxal Sénégal euh, yi parce que euh, gis nañ Abdoulaye Diop Khass da ko fajoon andi ay caméra filmer ko yaakaar naa ne loolu dafa dem ba bu gi dafa jaaxal nit ñi maanaam. loolu néew naa la laajteeg poobar bu mokk bee bari rek. Mm, am na ñu bari la ca Ndoye Bane waxoon Ndoye booy Ndoye Ndoye Bane dafa jar a bàyyi xel. Mm-hmm. man xaw ma ko waaye doomu Pire la. Mm-hmm. te man doomu Njaañ laa. Mm-hmm. macha allah. Ndoye Bane dafa jar a bàyyi xel gis nga même Adamo sax ko bàyyi xel. Adamo. Mm. Adamo. Mm-hmm. ku jara a bàyyi xel. moom génn ci vidéo yi. dama ne mm-hmm. jëf ji mu ci def du jëf ju tuuti de jëf ju rëy la. Mm-hmm. gis nga bu nit defee jëf ju rëy. dañ ko naan di nga def daa rëy. dafa def lu rëy li mu def lu ndaw. mais tamit meer neexum bàyyi saaga yi. comme léegi comme léegi bu waxee gars yi dañ koy déglu. no fi nekk nii. xam nga Sénégal. yan saa yi soxna Aida wax ñu ne lu tax soxna Aida wax lii. Mm-hmm. te au plus tard njariñu Sénégal la parce que koy dégg. Mm-hmm. dafa am ñenn ci sénégalais yi balaa ñu lay dégg dëgg. da mm-hmm. nga leen di saaga bay pare bu ñu la dégloo ba pare nga wax leen li fi ne moom daa saaga bañ ko. mu wax leen li fi ne am na ñu muy saaga am na ñu dul parce que am na ñoo xam ne amaana defuñu lu tax mu leen di saaga. amaana ña muy saaga it am na lu tax lu ca biir. sëb la ko bënn ngi ca biir. mu ngi mel ne dóor. ak yarta bañ a am am xam ne dóor mooy tax ñu dégg la. am na ñoo xam ne mooy tax ñu dégg la am na ñoo xam xëcc seenum nopp woo leen sukkulee moo tax ñu déglu la hmm. am na ñoo xam da ngay ñëw ak ñoom ndànk ñu déglu la catégorie yooyu bu doon lool la autopolice bi du yóbbu kenn bu doon hmm. loolu la tribunal kenn du fa taxaw juge bi du àtte kenn hmm. ku ne xamoon li ñu lay di ko dégg kon juge bi du àtte kenn tribunal du téye kenn police du jàpp kenn mais ñàkk communication ñàkk lu communication yi mooy waral lu bari di am Sénégal waaw euh, aussi tamit ñu gis ñun tamit. comme waaye liggéeyam rafet na de macha allah. d' accord waaw comme man faa may ku ko taxaw. waaw mbaa nga teral ko. Mhm. mbaa nga dimbali ko ci sama bopp rek laa koy xool. ndax damay yaay mhm. dafa bay di nit kersa mhm. ku ko dimbali man jëmm ji nga dimbali mais tamit weer ko tamit ba ba ñëpp gis ko te fajoo ma ne yokk jàngoroom dong ba yoxe laan leen poobar bi ëpp ak laaj ji <laughs> xam nga ni nit feebar ba toll ci moment au nga faj ko di ko mariner <laughs> jàpp ko di ko mariner jël laaj ji di ko sam-sami jël la bi jël war bu mokk bi muy sab sabi nga dem ba fatt <laughs> xoolal sama xol bi day metti garaawul